li li li li war borom kër ci soxnaam day bokk na ca moo ko war a dundal moo ko war a woddu moo ko war a woddu bu woppee moo ko war a faj doonte ci fekk sax dañ naa wax bu njëkk ne loolu faaw ñu dégg ko ni ñi ko doon wax dañ naa bu ñax bu njëkk naan borom kër faj soxnaam waru jamono yi ñu wax loola mooy bi nga xam ne faju toon alal boo faju dëbb ay xob naan ko la dégg nga ay reen naan ko lay mel noonu boobaa ku wér di yaa bopp waaye léegi nii faju moo gën a moo gën a seer ab dund waaw moo gën a seer ab dund bi teggin nag yor nit ba mu wéree nga delloo koy bokkam ñu faj ba mu wér dellu si waat la loolu ngor nag waru ko fekk ba tey am na ñu mooy dañu xam dañ naa la moom téere fiqi loolu ci nekk fekk sama soxna waruma boppee ne dellu ci bokkam moom faaw bàyyi xel loolu déggéem yoowu daa am lu ko waraloon kon moo ko war a faj moo ko war a dundal waaye moo ko war a aarit ndax xu anfusakum wa ahlikum naaran dox diggam ak sawara moom la war di ko digal lu baax di ko tere ab safaan ndawtal nag du farata du sunna du mandu cosaanu ndaw talit nag lu baax la woon cosaan la waaye jamono da ko bëgg yàq cosaan la nit da daan am doom ay mbokki jigéenam wóor lañ koy andil sànqal sunguf yooyu lañ daan dajale di ko andi ndax day togguru yi ngir bëgg am soow ngir doom ñu am lu mu nàmp yooyu lañ daan dajale yu bari wutal ko kenn koy dimbalee ko dara foofu lañ yam léegi nag bu ñu demee ba adduna soppi nga xam ne xaalis ngay joxe bu njëkkoo nit nag ba tey góor yi noonu la ñu def moom moom bu nit xewlee dañuy seet li nga mën du ko xool doo xool daanaka yow xam ne jox nga nanga waaye moom da ko jox mu dugg ci jibam bu boo xewlee it mu seet la mën jox la bu nag dañuy bind diw sàngam jox na ma téeméer diw sàngam jox na ma juróom fukk ab kaay la ñu yor di ko ci nekk mooy ñoom waxtu wu ñu ngi ci ay bor ku ci faatu rek fi ne war nañoo lijjanti bor ndaw tax te nag bor lu mat a moytu la waaye jamono ju ne benn yaa ngi leble wala yaa ngi leb ndax ñoom dañuy bañ sax nit ki amu xew nga ndawtal ko téeméer mu xew xewle fay la téeméer day wax ne damaa fa yem ci dañuy bëgg léegi boo ko joxee téeméer boo xewle dalay fay téeméer bi teg ci beneen téeméer boo léegi mu jox la ñaar téeméer tegaat ci beneen téeméer nga xam ne toujours day am ko ameel morom ji bor loolu wóoru te it nag man xaw ma jëriñoo wax naa leen ndaw sal bu njëkk nit ki ab dund doon doon ñu indi ko ci néegam mu di ci ruy di lekk ngir doom mu ngir mën a am soom nàmpale doomam wala ku sëy ñu jox ko di mu jënd ko ay bagage yu mën a ci këram man mën a toog sëy ci biir dañ koy dajale am ñu ñëw di leen nax di leen jay ñu leen koy jox noonu laa ko mën a tudde waaw dañ la jaay rek si amata jaar si mag tu wax naan nee na yàlla dundal sa bàyyi rey nga joxe xaalis nee na gars bu ñu bàkk naa la sa sa maama rey diw sa maama dur diw sa maama naw ñu ñëpp yàlla leen yàlla leen sos dundal leen yow ngi sa maama rey leen nga def ko tagg yow mais léeg-léeg it am ci yoo xam ne doo xam lu mu nuru moo tax bu yemoon ci cadre bi mu doonoon daal di cadre dimbalante moom lu wax waaye jàpp naa fi ne nii moom nit ñi dañ ko a bàyyi ndax mucc ci bor bu ñuy toppante bor lu doy waar la yonent bi alayhi salaam ci njëlbeenu lislaam ñëw na nit faatu mu tiim ko daan laaj daan ni seen waa ji bàyyi na bor ñu ne ko waaw mu ne ndax bàyyi na fi lu ko mën a fay ñu ne ko déedéet mu daal dem ne julle leen seen waay ma jullee borom bor ndeysaan benn waa ji baax daal di ñëw nañu ko islaam kaay ko maa gàddu bor door a ñëw jullee ko bi ba lislaam dëgër alal am ci la wax ne ku faatu bàyyeeti bor man maay fay bor bi gis ngeen loolu koo xam ne boo ko faatuwaalee bu amul loo ko fay sax yéyowooyu ñun islam nga xam ne kum jullee ñu tin ko moom daa daa naroon dem na jullee leen ko du ma ko jullee ndax lam ndax daa bàyyi boo te bàyyi lu mu ko fay lu mel noonu nag nit da koy moytu te niñ koy defee nii fi ne waxtu wu am na ko amee morom tappale yi ci nekk léeg-léeg dañuy jékki-jékki dara du xew am ku jékki-jékki damay laaj ndawtal kenn xawulum nga bu njëkk day am xew am génti am cét am doom wala nangam ñu dimbalee la ko nga nga dimbalee sa doom wala nangam waaye léegi day gis toog bu yàgg rek mu gis ne yàgg naa ndaw tole na laaji ndaw tol